nettalim ñaareel bi lu aju ci njariñul joxe sëriñ tuubaa xaala lahu llaahu ca jolof am na bés muy bind dégg ay fas di yëngatu mu ni loolu lu mu ñu wax ko ko mu ni man daal jaaxle naa koo xam ne takkatut tukkeetut te fu waay defare aw naaru góoram ba mu suur mu war indi te saa boroom it xamalaguma nu ma leen di def daa di wax sëriñ xamsatu nañu leen yeew ca biti ba ñu leen yeewee ñu nekk fa ab diir dagg gédd ya daw ñëw di wër kër gi sëñ bi génn ni ana loolu lu mu mu ni ko naaru góor yi la mu ni man de jaaxle naa koo xam ne takkatut tukkeetut te fu waay defaree aw naaru góoram ba mu suur andi te saa boroom xamalaguma nu ma leen di def xaaral ma laaj saa boroom seeni mbir nees tuuti mu ni saa nee na naari góor yi dajee am wow daa bokk ca naari góor ya ñu joxaloon soxna si nee na moom la ma tàmbalee fay ak warwaay yu bari yu ñëwagul siiw na lépp loo gis wala nga dégg ko am na sabab am na lu muy xam ne loolee nag moo tax ñi xam yàlla subhaanahu wa taala foo leen fekk dañuy fees dell ak xalaat ndax sunu borom daa bërile ba noppi xereñ képp ku mu tàmbalee woon ak xereñam nag foo toll waaru ngay dëkki ba tey jëpp jëf ju sell day am ak fay ci àdduna amaat ak fay ëllëg su ko defee sunu borom mbiram yépp da leen wutal ay àpp moo tax lu mu lay fay ci àdduna bu fa saw fan àggul da koy fay koo xam ne ci yow la bokk moo tax wolof yi di wax naan liggéeyum ndey añub doom ba tey jege gi sëriñ bi jege boroomam da koy dégge ci waxtaan wi ndax gis nga ne da ko laaj boroomam léegi mu tontu ko léegi kon war nañoo xam ne li ñu nekk yàlla sunu boroom xam na ko mi ngi ñuy gis wallahu aalam